junior mayekoor jël boobu takk ca morso bu xonq arbitre nee na ko dindi ko dindi na ko joxe na ko moom maam góor junior mayekoor nee na leen xët ak matte gàcci bokku ci ak ngàdd laaj na ay suisam ndox pare ngeen ndeysaan diggante Mayakor ak Mame Goor Junior Mayakor wan leen ginnaaw Mame Goor Junior wan leen kanam arbitre génn na seen diggante ginnaaw bi o sifflé Mayakor Mame Goor Junior Mayakor a ngay dox ci kawam président Babacar a ngi noonu président tous les arbitres du Sénégal ndeysaan moom Babacar hee Mayakor Mame Goor Junior président arbitre yaa ngi noonu tey Malick Ngom la ñuy delloo njukkal fii ci biir arène nationale eh Mayakor door na Mame Goor fayu na am Ndiaye joxal Diop croisé rente nañu am loolu mooy am Ndiaye joxal Diop door fayu maam góor siñoor nee na ku ko dóor abal ko yet bi mu fayu maya koor maam góor siñoor waaye neexul ba neexul waaye stade bi sedd na lii tamit duñu ci wax man mbëri lii moo tax Bombardier bërki dee mu mu damm ah tamit maya koor Mayakor Mame Ngor Junior mbëri di di sangoo ay ndox yu sedd guy ay ndox yu ñu nëbal ay juróom-ñetti fan fukki fan sëriñ boo dem mu jox la nga nëbal ah tamit lii duñu ci wax mbër da màggu fi sax laay <laughs> laa di nga gis mbër bu ñu sotti ndox mu xam de Mayakor Mame Ngor Junior maye koor góor junior maye koor góor junior waaye bëre leen du ngeen soq du ngeen marle bëre leen ndeysaan Ambroise Sarr moo ngi koy gis ca côté ba ndeysaan kii moo yore équipe nationale moom Ambroise Sarr xale yaa ngi nekk sélection équipe nationale lañ nekk ndeysaan Ambroise leen yore ndeysaan kii bi mu ko yore ba tey jógewul ci moom ndeysaan moom ancien gloire la Mayakor Mame Gor Junior waaye bëre leen bëre leen Omar Sall ñi seen lamb ji gaawul de seen lamb gaawul ñoom ñaar dañoo xamante ay ndam oh Mayakor Mame Gor Junior Mayakor Mame Gor Junior ndeysaan arbitre wax na ak ñoom sible woon na Mayakor Mame Gor Junior moyen koor déggal nday Mbàkke nee na mbër yaa ngay léewtoo moyen koor maam góor siñoor xalil la fou dimbali ñu yàlla moo dogal nga tuddee sa bopp la fou ndeysaan ba nga tuddee sa bopp daf la considéré wul ci ci nit maam góor siñoor ñu nekk ñu célébrité e jël na tànk ba e eh, maam góor jël na tànk ba ay waay e waay ay bu doon Mamady Ndiaye <laughs> nelaw na ca ba sa bopp bi du samp nelaw na ca e e ba sa bopp bi jiitu e da ngay toog da da ngay toog maye koor maam góor eh eh boo ci génnee eh toog na toog na toog na laayi laa maam góor si ñoor daan na maye koor nee nañ teg sànq ba tey ñoo yëngal waaye tey de du ngeen yëngal borom yi zone ya nee nañ teg tey de yëngaloo leen tàccu ngeen de fair play làmb fair play la woon laayi